nee na bu gisee womat ba kanam jafe ko aw ci yoon jafe ko na wéeru ci yàlla rek làqu ci yàlla te xam ne yàlla moom lépp lépp ci loxoom la nekk moo ko mën a tawfiixal moo ko mën a jubal ba mbiram baax mbiram jub kon nag lu mu mën di xam ci boppam ci lu rafet ak lu ñaaw lépp rek na wéeru ci yàlla tey góorgóorlu te yaakaar yàlla xeetali ko rek te bu mu naagu mukk nag yërmande ndax naagu moom ëpp naa def naagu moom mooy tax a yàqule nu mu mën di mel rek nay am yaakaar ci yërmande yàlla wal fikratu xalaat fi amrillahi ci mbirum yàlla miftaaxul ibaadati mooy caabi jaamu yàlla nee na di xalaat kiimtaani yàlla yi ak li yàlla sàkk ak ni muy soppandikoo ci mbir yi dana tax nga gën a jëm ci jaamu ko te sax jëmmi xalaat googu ci boppam sax nee nañu jaamu yàlla gu rëy rëy la goo xam ne moo ëpp xeeti jaamu yàlla yi ñu def ci cër yu baree bari du tee nag muy julli julli juróom di jox farata yi waaye bu ci xeet naaf li rek desee daal nee nañu xeetu xalaat lim ko mën a defaral ci ay mbiram xeeti jaamu yàlla yu bari yu mu yëngatu ci yaramam mënu ko fastain da ngay dimbandikoo bi zikril mawti ci fàttaliku dee wal fikrati ak xalaat fii maa ci la nga xam ne ba adahoo nekk na ci gannaawam nee na sa bakkan bu la naree të del jéem a baril fàttaliku dee ak li nga xam ne mooy ñëw ci gannaaw dee ci bàmmeel ak dundu bar sax gaag bis penceeg yooyu yëpp ngay di ca xalaat dana tax sa bakkan nangoo aw ci yoon wa fii ni'mati rabbika ak ci xéewaluk sa boroom xaleeka ci yow wa imhaalihi akuk muñalam la kañeel la wa axzihi akuk jàppam te xëy di ka ñeel kudul yow bi zambihi ci bakkaaram wa fii saalifi zambika ak ci aji wéeyi sa bakkaar wa xaaqibati amrika ak mujug sa mbir nee na itam del xalaat ci xéewal yi la yàlla xéewal rek boo ci dee xalaat mën naa tax nga di ko bañ a moy ndax ku lay defal lu baax rek boo ko dee fàttaliku doo ko moy da ngay seetlu ne moom kat yaa ngi koy moy rek mu di la muñal te am na ñoo xam ne bañ ko moyee dafa daal di jekki-jekki jëflanteeg ñoom fa saasa ni ki yenn xeet yi nga xam ne ñoom la alxuraan di nettali seeni mbir te it ngay fàttaliku li nga weesu ci bàkkaar xamoo yàlla baal na la koom déet loolu di ko xalaat baax na lool la gën a mën a dimbali nit nag mooy xalaat ak mujjam nit dafa umpale ak mujjam lool lool te ak mujj rek am solo kon nag muy xalaatu mujjam te lépp li tax mu am mujj gu rafet mu di ko jéem lépp lu koy andil mujj gu ñaaw mu di ko moytu loolu da ci xalaat bu baax di ci yëngutu wa mubaadarati ma ak njëkkanteeg la nga xam ne xasa an yakuuna xëy na lee mu nekk xad iqtaraba di jege min ajalika te moo di sab àpp te it nee na ngay jéem di jëkkanteeg sab àpp te àpp bi moom xamoo kañ la te mën na laa jege lool te àpp dee moom bu ñëwee dara du ko toppale te dee moom mooy yemukaayu pexe yi nga xam ne bu xasee faatu daanaka deseetul dara lu may ñu koy ñaanal ak ay benn benn jëf yu baax yu mu defan mu koy fekk foofa kon nag nay xalaat ne ab àppam mën naa jege lool ko defee muy njëkkanteeg loola nag di def di def lu baax kem kàttanam baabu li ab bunt la fil fitrati ci bind wala jikko baatu alfitratu dañoo wute ci lu muy firi am nañu ne al fitratu mooy doxalin wa nga xam ne moom la yàlla tànnal ay yonanteem ñu dëppoo ca di ko doxe ba mel ne ba mel ne dañu leen ko binde am na ñu ne al fitratu mooy jikko yi nga xam ne sàmmontey ñoom mooy tax doomi aadama ci mat nekk ci meloom wa nga xam ne moo gën a mat gën a tedd ba tey al fitratu dana firi diine rek ni ki addis bu wax ne kullu mawludin yuuladu xalal fitrati képp ku ñu jur rek dañ lay jur nga àndaale diine mooy andiwaale gëm yàlla xam yàlla gannaaw ba nag ay waajuram ñoo koy wëlbatee ca loola waaye bu dee ci fii moom man nga ne bind bu rafet man nga ne jikko ndax dañ cee jublu anam yi nga xam ne doomi aadama warat naa sàmmoonteeg ñoom ndax bind bu rafet bi ko yàlla bind fis bañ jàkkaarloog moom wal xitaani ak làkku te mooy xaraf wa xaqi chahari ak wat kawar wal libaasi ak koddaay wa saqi xawrati ak sutural awra wa maag la nga xam ne yat tasi dana jokk bi daalika ci loolee day wax ci bunt bi anam yi nga xam ne doomi aadama war na koo sàmm ndax bind bi ko yàlla bind ni mu rafete fés bu baax a baax saraat moom lay wax naa ay alxisaalu allati yakmulu biha almaru xata yakoona ala afdali sifaati ay afdali hayaati wax itam mbirum xaraf ak wat kawar lu ci aju ak koddaay la ci aay ak la ci aayut ak sàng awra ak yu deme ne yooyu wa minal fitrati bokk na ci jikko xam sum juróom man nga ne tam wa minal fitrati bokk na ci bind xam sum juróom maanaam sàmmonte juróom yi dana tax ni yàlla bind nit ki te muy bind bu sell nekk lu fés bañ ràññee ko bokk na ca kasu shaari bi yemp ay naanu yox ay mustaas waxoo moom ak itaaru mooy itaar waxoo moom tarafu shaari mooy catul kawar ga al mustadir yi bay aji wandeelu xala shafati ca tuñ ma laa ixfaahu du caagéen ak faagaagalam nee na bokk na ci juróom yooyu bu ko yàlla defalee ay mustaas mu sax ci li wër tuñ yi mu di ko jemp te bañ koo faagaagal mooy te bañ koo wat ba mu set wecc wecc li tax mu ne nag mu di ko jemp te bañ koo wat ba mu set wecc ba noppi dolli ca wallaahu aalam dafa am ñaari nettali yu bàyyikoo ci ku baax ka yoo xam dañoo xaw a wuute ndax benn ba dane ahfu alchawaariba wa afu alliha mustaas yi wat leen ko ba mu seet wecc te lëwal seeni sikkim muy bàyyi sikkim yi mu gudd bañ koo laal booba nag ci la abu xanifa ak achaafi yu jàpp am na benn xabaar bu bàyyi ko ci ku baax ka andi kossoo ashawaari ba jëmp leen mustaasiya mu ne nag boobu la Malik jàpp moo tax mu ne ay mustaas mooy kawar gi wër tuñ mi kon dañ koy jëmp rek te bañ koo faagaagal maanaam bañ koo war ba mu set wecc mu ne waaye nag yàllaa xam ndax ñaari nett li ñëw na foofu ñee topp bee ñee topp bee waaye nag bu dee ci yoonu Malik moom mën ngaa takk rek ne dañuy araamal wat ay mustaas ba mu set wecc wecc di araamal wat sikkim ba mu set wecc wecc am na ku baax ku ko boole woon ci wenn way ne fa xalqu lixyatin wa shaaribin xaraam ta'diibu man yafaluhu ala al imaam wat ay mustaas ak wat sikkim dafa araam te ku ko def ilimaan bi war koo yar waqasul azfaari ak lewi ay we kooku mooy ñaareel bi wanat fil janaaxay ni ak xus ay kawari poqataan waxalxul xaanati ak wat ab naq boo njëkkee jemp mustaas yi nga ciy teg lewi ay we muy ñaar nga teg ci xus kawaru poqataan maanaam bu fekkee poqataan am na kawar mu xus ko sopp nañ ko da ko ñeenteel nag mooy wat kawaru naq naq bi bu saxee kawar mu wat ko wala ba asa ayut bi xilaaqi xëyriha ci wat lu bokk teg moom min chaharil jasadi ci kawaru yaram bu kawaram saxee feneen fu bokkute naq bi su ko neexee mën na koo wat ci bëyee tànk bi ba loxo wi ba dënn bi fu ci am kawar bu ko neexee wat ko wal xitaanu làkku te mooy xaraf sunnatul sunna la li rijaal ñeel góor ña wal xifaadu tonniku makrumatun teraanga la li nisaay ñeel jigéen ña nee na góor taamu nañ ci moom mu xaraf sunna la bu dee jigéen tam sopp nañ ci li ñuy wax tonniku daa am jigéen ñoo xam ne seen sawukaay ci kaw day am lu mel ni xiru ganaar ñu dindi ko nag te bañ a ëppal dindi ga yonent bi digle woon na ko kon yi boo ko boolee mooy juróom yi nga xam ne dana tax ni yàlla bind nit ki fés rafet ñu xam ne yàlla bind na ko bind bu rafet rafet te mooy jemp mustaas yi benn lay wey ñaar xus ay poqtaan moo ko ñetteel wartoor naq moo ko ñeenteel juróomeel bi nag mooy bu dee góor mu xaraf bu dee jigéen mu tonni ko wa amara digle woon na annabi yonante bi an tuufa bu dee fi lëwal allixiyatu sikkim ba wattu wax farata def ko lëwal wala tu xasat def ko jemp te defu ko jemp yonante bi digle woon na ko amul sikkim mu bàyyi ko mu sax rek di wéy noonu bañ koo wàññi bañ koy def nenn te yar ko rek noonu bàyyi ko mu wéy xaala wax na maalikul maalik ne wala ba as ayut bil axsi jàpp ga min toolihaa ci guddaayam ba isaa taala ndem gudd na kasiran lool wa xaala wax na ko it xëyru waahid ku dul kenn mi ne saxaabat ci saxaaba yi war taabihiina ak way topp saxaaba yi al imaam maalik nee na nag bu fekkee sikkim ba daa bari kawar lool bay bëgg a ëpp li nga xamante ci sikkim nag manees na koo wàññi rek ba mu yem loolu daal nee na di ko maalik waxee itam du moom dong ñenn ci saxaaba yi ak ña toppoon ci saxaaba yi ab li wax na ko ca wayu kurahu def na si si baaxu shahari suub kawar ga bi sawaadi ci ak ñuulaay mooy ci lu ñuul min xayri min xayri tahrimin ci dul ak araamal am kawaru bopp gu weex wëlbatiku ñuulal ko bu dee ci gis ci suwaa maalik dañ koy sib kese yam ci bu fekkee ne kooka làqu ca leneen bu ca làqee leneen ni ki war nag ni ki moom mag la bu dem bëgg a takk nag jigéen ju ndaw tax mu ñuulal boppam nga xam ne kon da ko cay nax ne ko man waxambaane laa loolu day araam kon bu fekkoon ne dañuy jihaad ci yoonu yàlla mu ñuulal boppam tax bu ko yéefar bi gisee ragal ko jàpp ne waxambaane la kon dañ koy sopp kon ci takk-takk ñuulal sa kawar fekk mu weexan daal sib rek lay doon bu fekkee làquñ ci leneen luy tax ñu sopp ko mbaa luy tax ñu araamal ko li mu ne min xëyri tahrimin nag ndegam sib gi mu wax léeg-léeg ñu wax ko jublu ci araamal léeg-léeg ñu wax ko jublu ci seexlu rek agul ci araamal moo tax mu ne ak sib kese la sibuk seexlu waaye nag du sibuk araamal wala baas ayit bii ca suuf ga bil xinnaay ci fuddal wal katami ak turumbal fuddal moom day xongal kawar ga turumbal moom da koy puural men da koy roosal mais nag bu la neexee sa kawar weex ba noppi nga xongal ko ci fuddal mbaa nga def ko ba mu puur ci turumbal turumbal moom xobi garab la bu tudd salam wanaxaa tere woon na arasul yonante bi alayhi salaam ak dukkoor ak góor ña xan libaasil xariri wari sol sooy wa taxatumi zahabi ak jaar wa wurus nett li ba ca addis ba daa wax ne ku baax ki sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa jëloon sooy téye ko ci loxol ndeyjooram jël wurus def ko ci ab càmmooñam daal di ne yaar yi day yàlla araamal na ko ci sama góoru xeet wi nga xam ne kon sooy ak wurus góor sañu koo jëfandikoo waaye nag jigéen moom yooyu yaar yëpp sañ na koo jëfandikoo waxani taxatumi ak walis jaaroo bil xadidi ci weñ gu ñuul jaaroo weñ gu ñuul ak jaaroo përëm moom dañ koo sib moo xam ci góor la moo xam ci jigéen la ndax dañoo wax ne weñ gu ñuul mooy takkaayal waa sawara moo tax ñu sipp ko takkaayoo wala ba as ayut bil fiddati ca xaalis ba fii xilyatil xaatami ca takkaayal jaaro ba wa sayfi ak jeesi wal mustafi aku kaamil wala yu jixal waaye deful def daalika loolee fii li jaamin ci laab wala sarjin du jaageen ak teg wala sikkiin du jaageenu paaka wala fi xëyri daalika du jaageenu ci ludul loolee nee na góor day may nañ ko mu wut benn jaarub xaalis boo xam ne bu mu ëpp diisaayu ñaar dërëmi yoon ñaar dërëmi yoon nag manqué na juróom benni garaam ci xaalis lu jaaru ba diis diis bu mu ëpp diisaayu ñaar dërëmi yoon te it na nekk benn dañu bañ mu boole ñaari jaaro donte bu boolee ñaar ñëpp ci diisaay ba du mat sax ñaar dërëmi yoon waaye limu na rek dañ koy aaye te aajo muy benn boole ñaam may nañ góor jaaru xaalis boobu ak jeeseem mu xoobe ko xaalis ak ab kaamilam mu xoobe ko xaalis loolu may nañ ko ko waaye lu weesu loolu nag dañ ko koy aaye mel ne laabi fasam mbëgg koo xoobe xaalis wala ak tegam wala paakaam wala montaram wala ab jaaroom jaaro góor sañu ko takk ci wurus mbaa sax jaaro boo xam ne léeg-léeg wurus fee di xaalis sax du ko sañ a takk waaye taxatta mu dana jaaroo an nisaawu jigéen ña bi dafa bi ci wurus jigéen moom lépp lu ñu takkaayoo ci wurus ak xaalis rek yoon may na ko mu wut ko ca takkaayoo ba nu xëyee tereef na xanit taxatta bi walis jaaroo bil xadidi ci weñ gu ñuul day leeral fii ne jaaroo weñ gu ñuul dañ ko sib ci góor ak ci jigéen wal ixtiyaaru tànn ga mimmaa ci la nga xam ne ruwee nettaleef na ko fi taxatumi ci jaaroo ak taxatumi mooy jaaroo fi yeesaari ci càmmoñ ba li ànd tanaawula shay ngir naka yootu dara bi yem yi nekk na ci ndeyjoor ba fa woo moom yaaku zuhoo dana ko jàpp bi yem yi ñi ci ndeyjooram waaye ci xaluxoo tem koy def fi yeesaari ci càmmoñam li ñu gën a taamu nag mooy booy takk ab jaaro nga takk ko ci loxob càmmoñ bi te def ko ci baaraamu sangaleñ ba ndax ndegam loxoom ndeyjoor bi moom ci nga yootoo loo yootu kon jaaro bi mën naa nekk ca loxo càmmoñ ba waxtu li fa wóoteef na fii libaasil xas yi ci ko daayal xas fa ujji sa dagana leef na ko wa kuriha te sibeef ko xas mooy loo xam ne li ñuy wax garay ak fàlla yi garay ga daa doon sooy bi yonante bi aaye woon fàlla ji nag doon leneen lu bokkute sooy ni ki doon wuteen mbaa leneen moo tax ñu wute ci nag ñenn ñi daganal ko ñenn ñi sib ko am na sax ñu ca tudd araamal ga wa kasaalika naka noonee alxalamu aw rëdd fi taw bi ca malaan minal xariiri bokk ci sooy idal xatt ndare rëdd wa ar raqi xawe aji sew ba tey bu fekkee da nga doon ràbb ab yére di ko ràbbe lu mel ni wëtteen waaye na nga caa def lu tolloog aw rëdd woo xam ne moom da nga ko ràbbe ci sooy bañ araamal ne loolu ba tey wuute nañ ci am nañu wax ne dagan na am nañu wax ne déedéet sañe su ko lu may nag rëdd woowu nga ca boole ca rabbe ko ci sooy piir ba day rëdd bu sew a sew nga xam ne matul sax yaatuwaay baaraam kooku moom daañu ko jéggale wala yal basu du sañe sol am ñi saaw jigéen ña mina raqi ci aji sew maanaam ci aji wayef maa loo xam ne yasifuhun na dana leen melal isaa xaraj na ndéem génn nañu maanaam jigéen suñ ko sol yére yoo xam ne jëmm ji tal na sax waaye day am lu feeñ ci yaramam te warta feeñ ni ki dënd ba wala gannaaw ba wala feeñ ci yaram ba rawante na nag li wax nii mooy yére yu sew yu woyof yu yu yaraax yaraax yoo xam ne jëmmi der yaram dañ koy mën a xàmmee booy xool rek gis yaram nam mel ci dafa xees mbaa dafa ñuul ndax la mu sol dafa yaraax bopp loolu sañee su ko araam na ci jigéen jigéen daa war a sol loo xam ne day sàng yaramam bu baax a baax ba noppi day këpp ba nga xam ne lu warta feeñ ci moom rek du feeñ wala yo juru du sañ a diri arrajulu góor isaarahoo tubayam batara ngir rëylu wala saw baxoo du jaageenu malaanam minal xuyelaay ngir puukaréwu araam na ci góor mu guddal tubayam mbaa mbubbam ngi wane ne moom borom daraja la am na xéewal am na daraja am na alal ju bari tax mu guddal ay yére ba muy buubu loolu dafa araam daa tudd nag góor rek waaye nee nañ jigéen tam noonu la góor a jigéen ñoo ci yemoo kenn sañu cee guddal ay mbubum ba muy puubu daal ngir puukare woo wane wu rek wal yëkkun na nekk rek ilal kaa bay ni jëm ci yaar doyore ya fa huwa moom am foofu moo gën a set li taw bi xii ñal malaanam wa at xaate moo gën a ragal li rab bi ñal boroomam nee na moom daal bu mu gudd gudd moom yére ya ni ki tubay ja bu weesu dojar yi mën ko mën na ko gën a gàtt nag waaye bu weesu dojar yi ndax loolu mooy gën a sàmm yére yi muy set du buubu ci sobe te it mooy tax mu gën a mucc ci yëg boppam mbaag rëy ba yàlla di ko ci mere wayun xaa def ne tere xanis jimaali sàmmaayi walis làmbaayoo làmbaay gu tax waxee te fekk na moom alaaxo yi di saw bin nekk na ci ludul malaan neen li ñuy wax istimaalu sàmma xeetu làmbaay la woo xam ne ñu ko daan def ci yooyu jamono nee na boo ko defee te fekk jiituloo tubay jiituloo menn mbubb dañ koy aay aay ak araama la boo jiitalee nag jiit laay ni ki tubay mbaa leneen nag daañu wax kon luy àtte ba ndegam bi nga koy def fekk na am loo jiital muy tubay mbaa beneen mbubb ñu koy defee nag mooy yar faxu day yëkkati daal di ko loolee min jihatin ci wàll waaxidatin guddi genn wayes du te mu yor al uxra wàll nga ca des wa daalika loolee nag isa lam yëkku ndem nekkut tax tas timaali ko ci ron sag làmbaay tawbul malaan waxtu li fa wóoteef na nag fii ci moom xalaa soobin bu nekkee ci kaw malaan ni mu ko xamlee moom mooy day jël rek benn yére day jël rek benn yére teg ko ci benn côté bi bàyyi ba ca des ko defee awraam di feeñ am ñu ko firee neneen ak neneen waaye lu ci mën doon rek xeetu làmbaayu la goo xam ne ku ko mësaa def daal sa awra feeñ day yomb atte ba nag mooy bu fekkee ne jiitaloo tubay jiitaloo beneen yére day araam nga làmbaayoo làmbaay gu mel noonu su fekkee da ngaa jiital tubay nag mbaa beneen balaan nag ñu wutee ci ba xam ndax des koy aaye ba tey wax yonente bi aaye woon na ko am dañ koy daganal ndax lam ca bañoon rek mooy awra ja feeñ te ba nga xasee jiital tubay mbaa beneen bubb léegi awra ja du feeñati kon moo tax ñu wóotee ci ci bu fekkee ni malaan jiitu na ko xeetu làmbaay googu seen aadala woon ñoom waaye bu dee ci nun mbaa ci feneen ba tey bépp xeetu solu wiin woo xam ne bu ko jëmm ji defee rek awaraam yomba feeñ des koy daal di aaye mel ne dara yi ñu sol xam nga ne ku ko sol te jiitaloo tubay jiitaloo dara awra ja feeñ day yomb kon kenn kon kenn du sañ a sol dara yi kese rek noonu te jiitalut dara muy mbubb mbaa tubay wa yu'maru def na digle bi sattuñ xawrate ci suusal awra muy góor muy jigéen kenn ku ne war naa sàng awraam bu fekkee day julli moom julli gaay tax mu war a sàng awra bu dee génn mbaa mu toog foo xam ne kenn mën na ko faa fekk muy góor muy jigéen ba tey war naa sàng awraam ba kenn du ko gis mu des nag bu beroo ci am néegam moom dong ak yàlla te julliwut su boobaa du tee ñu sopp mu sàng awraam ndax rusi yàlla ak malaaka yi nga xam ne ñooy ànd ak moom saa yu nekk wa ifdatul mu'mini tubay aji gëm ila am saafi saaqayhi jëm na ci xaaji ñaari yeelam ya aji gëm yàlla moom nee na la gën ci tubayam rek mooy mu dem ba xaajale yeelam yam foofa wala doxi si lupp ba xawratun awra la walay sakal xawrati waaye déer mi mel ni awra ja nafsiha jëmi boppam ak lupp awra la taxul nag mu ñànge ne awra yi buntu suuf bi mbaa buntu sawukaay ba waaye nag góor fu mu toll war nay sàng di tàmbali ci mboxam ba ci bëti woomam dara bañ caa feeñ bu dee jigéen nag mu war a sàng yaramam wépp wépp wépp ba mu des kanam gaag teng ya bu dee ci gis-gisu yoonu maalik moom jigéen mën naa bañ a muur kanamam ak ay tengam te it góor sañ naa xool kanamu jigéen joo xam ne jaambur la ci moom bu fekkee ne xool ga jubluwu ca bànneex te it ragalu ca fitna bu dee xoolu bànneexu nag baam ragal ca fitna ci bu ko xoolee nag kon du sañ a xool nga seetlu lee mu ne tuba yi aji gëm day dem ba xaajale ay yeelam rek yem ca daa wax rek tubay waaye jubluwuñ tubay dëgg-dëgg lépp lu muy sol ci xeeti yére yi rek na bañ a gudd ba ëpp rek nañ jublu kon sopp ga rek mooy la muy sol yam ci xaajale ay yeelam muy mbubb muy tubay waaye nag mën naa weesu foofa ba ca dojor ya te bañ a weesu dojor ya ndax lu weesu dojar ya aljis ba da caa tëkkoo ci sawara wala ay doxalu du sañ a dugg arrajulu góor ga alxamaama baytu xamaam illaa bi mi sëri ndare mu ànd ak tubay baytu xamaam daa xewoon ci yooyu jamono liñ daan defar ab néeg boo xam ne dañ koy tàngal ba mu tàng bu duggee ba ci biir nga yëg tàngaayu ba ñaq tër bi gajaf ba defee ne ñu sang la ba nga set nga fay mu ne moom nag boo fi dugg faaw nga war a yoraale sirip wala tubay joo xam ne mooy tax ka lay sang bañ a gis sa awra ndax li ci ëpp day am koo xam ne mooy ñëw sang la daawoo sang sa bopp kon nag dañuy bañ ka lay sang gis sa awra kon day aajowoo nga yore sirip ju tal mbaa tubay ju tal joo xam ne sa awra du feeñ te itam bu dee bomb bu mu ñëw ba laal awra yi ki muy sang déedéet wala tadxuluhu du ko dugg almaratu jigéen illa min xillatin dara ngir sabab yonente bi daan ay jigéen nag mu dem ci sangukaay yu mel noonu lu may ngànt mel ne daa amee mbërëg te mënu caa ñàkk dem ngir sangu wala wasin mbaa mu amee janaaba mbaa boog mu amee jàngoro joo xam tax ne daal mu war faa dem parce que ne noonu daal bu fekkee loolu amut jigéen moom bu fa dem wala yitalla saxu du jonjoo rajulaani ñaari góor wala mara ataan du ca génn ñaari jigéen fii li xaafin ci mbàjj waahid mu di menn dañuy aaye góor xool awray moroomum góoram wala jigéen xool awray moroomum jigéenam moo tax yonent bi doon aaye ñaari góor def yaramu neen bokk sàngoo menn mbalaan mbaa menn mbàjj wala ñaari jigéen def yaramu neen bokk sàngoo menn mbàjj mbaa menn mbalaan loolu lépp day tax seen awray jonjoo mbaa kenn kay xool awray moroom ma te loolu ëpp naa def wala taxarju du génn imraatum jigéen illa mustatiratan ndare mbir mu muy aju suturlu fi maa ca la nga xam ne laa budda mënta ñàkk laxaa ñeel ko min hu ca moom min shuhudi mawti abawayha ci teewe faatuk ñaari waajuram aw di xaraabatiha wala boroomu jege ñaaleem aw naxwi zalika wala lu nuroog loolee mi maa ca la nga xam ne yu baaxu def na ko daganal laxaa ñeel ko ñu ne jigéen balaa génn daa war a sol yére yu mat sëkk ba nga xam ne dara lu warta feeñ ci moom rek feeñatul te fekk la koy tax a génn doon loo xamante ñàkk ni ki ndey mu bàyyam kenn faatu ca mu war caa teew wala am mbokkam faatu mbaa lu mel noonu ni ki am mbokkam di céetal ak yu demee noonu xam dagan na mu dem ca waaye waaye daal na soloo ni lislaam bëggee dara bañ a feeñ ci moom lu warta feeñ wala taxduru du sañ a teewe min zalika ci loolee maa loo xam ne fii nekk na ca nawxu naihatin déjjeetug aji déjjeetu aw laxun wala po min mismaarin ci tuxura aw xoojin wala bantu xalam aw sib xi wala nduroog moom minal malaahi ci foyukaay yi almulhiyat yi aji foloo te nee na kat xayma fa mu am bu fekkee dañ fay def lu araam ni ki ab dëj la waaye dañ fay déjjeetu déjjeetu mooy niñ daan def ay jigéen dajaloo di jooy ka faatu di neexatal seen baat mel ne mus muy sab di wàññi ay baax baaxam ak yooyu loolu mooy déjjeetu loolu dafa araam foo loolu amee nag kon jigéen ji du sañ a dem ca dëj ba bu dee xew lu mel ne ceet mbaa yooyu itam am xeetu tuxura mbaa xalam mbaa yi demee noonu itam ci xeeti foyukaay yi nga xam daa aay ñu ko fay fo ba tey kon du sañ a dem bi la duuf fa ndari ndënd ma fi nikaax ci sëy ba bu fekkee ne nag xew ceet la bu fekkee amul jaxasu góor ak jigéen moom daañu may ñu tëgg fa am dënd moo xam ne ñu ko foor ci genn wet mooy genn wet gat lañ muur waaye muuru ñu wet gi ci des wala moo tudd ak duuf am dënd mooy genn wet gi lañ foor genn wet gi lañ muur waaye muuru ñu wet gi ci des daañu may ñu tëgg ko ci xewu ceetu jullit bu fekkee amul jaxasu góor ak jigéen nga xam ne jigéen rek ñooy tase xëy na fa ñuy tëggee loolu ñu mayee ci tëgg am dënd ci ceet dañoo bëgg rek lu mel ne ab sëy siiw moo tax ñu ko daan mayee ci yooyu jamono waaye nag duñu nangu benn yoon jaxasoo góor ak jigéen góor ñi dañuy féete ne jigéen ña féete ne te kenn bañ a wax bañ a def dara loo xam ne lu lislaam bañ la wala yaxloo du saña wet rajulun góor bimraati jigéen lay sat bi maharamin jot du araamante min fu ci moom nee na góor suñ tëyeet ak jigéen joo xam ne araamu ko mu jëpp jigéen joo xam mën na koo takk rek na moytoo wéet ak moom ndax seytaane dañu daal ñetteel tàmbalee bëgg a jàppale seen diggante bañ def lu aay bu góor a jigéen daal wéet te fekk araamante amul seen diggante mooy si araamul seen diggante bu si araamee seen diggante nag moom kon mën nañoo wéet wala ba as ayut ay yaraaxaa mu gis ko li xudrin ngeen gànt min shahadatin ci seere alayha ci moom aw naxwi zalika wala lu roog loolee aw isaa xatabaha wala ndeem labat na ko mën naa xool jigéen ji nga xam ne araamu ko ci kaw ngànt mel ne mu di ko seere ci ab sëy wala mbirum àtte ci yoon mbaa yi demee noonu mbaa mbëgg koo takk soxna xam ne yoon may na ko mu xool kanam nga teng ya wala boog muy kuy faj bu dee góor guy faj sañ naa xool ci jigéen ja digg bam ca nar a faj te bañ a xool loo xam ne bokkul ci la